président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye démb ca conseil des ministres joxor bi na Ousmane Sonko ilimaani jëwriñ ñi ne ko waajalal sa bopp te dem def déclaration de politique générale foofu ca assemblée nationale ne gouvernement bi na ñu nañu xàccandoo te dóorandoo ci wàllu communication ñu xam lees di wax ak ni ñu koy waxee sénégalais ba mu leer ci seeni i nopp fal nañu quatre-vingt-un personnes yu ees yoo xam ne ay poste yu ñooñ président Macky Sall yoroon tuxale nañ leen fa jox ko ñu mel ne professeur Bamba Diagne Ngoudou Mboub ex Outmane Diagne Euh, ay post yu expect lu tolloo 81. El Malick Ndiaye daal jàkkaarloog waa transport bi ci waxtaan wu ñu amoon ne leen transport bi ñun ñoo ko mën a supparñi waat ko ba mu mel ni mu bëgg ni mu bëgg ndax waa Sénégal mën cee di 17 fu ñuy mën a defee visite technique daan ko am yu expect. ARTP daal ne connexion beeg appel téléphonique waaye communication daan ko wàññi lool ba sénégalais yëg ko waaw bu ko defee kon. Euh, Euh, nu mu tuddati Serigne Mboup moom daa jàpp ne li ñuy def maanaam di laaj lempo état bi ni ñu koy laajee nii moo nar a nërmeel économie réew mi bu ñu lempo nu ñuy def moom waaw taw démb bi nag indi na ay gàllankoor ci gox yu mel ne Kaffrine Touba ak yenn diwaan ci Ndakaaru waaw xaw ndox mi taw na démb la jël leen taskatu xibaar yi xëy bind ko ma yeggal leen ko waaw euh, Amadou Ba boo sàgganut moom moo nar indi. mbiiloo mbaaloo gi gën a mag jamono ji ca APR waaw Sangomar la muy génne ca pétrole boo sàgganu Sénégal du mën a jariñoo lépp dañuy continuer di importer ndax saar mi fi nekk munta raffiner lépp walaay ndeysaan ah loolu day baax na moom gën na Tamba musiba naaru laay benn policier la fa benn camion dër mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. Média TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonnez abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne